poche équipe bi nga xam ne moom mooy Tunisie benn bal ci dara la ko Gambie dóor dinañ ci ñëw sax jokkoog suñu ndaw yi nga xam ne jamono yi la ca Gambie Gambie neex jamono yi yi ñu ngay ca mbeddi Gambie ya Mali moom moo jàpp équipe bi nga xam ne mooy Mauritanie suñu dëkkandoo yi dóor ko bay noos ci kawam ñaari bal ci dara la ko fëgg kon nag poule bi nii la demee jamono yi la Mali moom moo jël première am na sept points Gambie moom jël deuxième am sept points Tunisie jël troisième place gis ngeen ko ki nga xam ne mooy Mauritanie amul benn poñ kon nag foofu mën nañ jàpp ni euh, ISRA bi officiel na xam nañ nag ñi nga xam ne ñoom ñooy dem ci huitième de finale ya gis ngeen ko Burkina Faso moom ak Gabon ñooy laale gis ngeen ko Nigéria ak euh, Tunisie ñooy laale Guinée ak équipe bi nga xam ne mooy Gambie ñooy laale Cameroun ak Comores ñooy laale Sénégal ak Cap Vert ñooy laale Maroc ak Malawi ñooy laale Côte d'Ivoire ak Égypte ñooy laale Mali ak Guinée Équateur ñooy laale aywa mi ngi doon ginnaaw bi ñu joxe équipe nga xam ne ñoo war a laale ci huitième de finale yi dañ naan coogu nag dem fële nga xam ne moom mooy réewum xam ne nag tey Gambie daa am solo ah bii ak benn nil naan coow dem fa fële nga xam ne mooy Gambie suñu ndaw yi jamono yi lay soxna Khady Dia mi ngi xamal ni ne mooy Serigne Fallou jàpp ni na Serigne Fallou jamono yi yaa nga xam ne mooy Séné Gambia euh, jamono yi lan moo xew foofu Serigne Fallou ñu ngi lay yéen a ngi en direct fii ci Gambia ci gox bu ñu naan Sénégambie gox boo Sénégal ngir kuréel gi am ak uh-huh. fii di Sénégambie nag nit ñi yéen dégg coow li noonu uh-huh. di wane di feeñal seen mbégte ak seen contentement bi ñu am ci ndam lu rëy lii uh-huh. nga xam ne luy xaatoon la nag du ndaw du góor du jigéen du paa meer ñëpp a ngi génn ci mbedd yi a ngi taxaw di wane seen contentement Mohamed xam naa bëgg naa nga jigee ñenn rek ci ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi bu ko defee rek nga digtal ñu seen i kaddu seen mbégte gi nga xam am nañ ko ci équipe bu Gambie bi ak lu am solo li nga xam ne defagul na ko ba dem ci huitième de finale yi euh, Serigne Fallou ñu ngi lay ziare waat. waaw El Hadj Mor comme ni ma la ko waxee rek ñi ngi rek fii ci Gambia ci gox bi naan Sénégal yaa ngi dégg noonu coow li nit ñi di génn wane seen mbégte ak seen contentement ci ndam la ñu fii ci. Euh, ci kaw Tunisie seen ndam ñu am ci kaw Tunisie mu nekk mbégte mu rëy moo xam ne mu rëy rëy la mu nekk nit yoo xam ne tey boo gisee nit ci kaw suuf dañ bari bari loo xam ne tamit luñ xaaroon la da luñ doon xalaat la. waaw jigéen ma ñenn rek ci askan wi. dégg taalal suñu loxo rek ci kenn si ñoom war nañu si sa noo gisee ndam la. noo gisee ndam la. xanaa kontaan kontaan kontaan. ak ak set bu Sénégal. oh dama kontaan dama kontaan waaw. loo xaaroon loo xaaroon la woon alaaji Mor yaa ngi dégg. maa ngi dégg Mor yaa ngi dégg. Cissé loo xalaat loo xam ci ndam li. day kontaan. da ngeen ko xaaru wala. dañ ko fa ko mosu ñoo am lii suñu live. mi ngi noonu ba léegi rek en direct foofu li nga xam ne mooy Gambia ba léegi rek nga gën a jigewaat ñeneen ci askanu Gambia ñu joxe seen mbégte tay jile ndam li nga xam ne am yaa mu mel ne fi mbooloo mu takkoo takkoo takku génn tey jii di wane seen contentement ak seen mbégte ci kaw ndam li ñu ci kaw Tunis lu xaaroon la wala ah, kii play na xam na leen lu gars mun xam nga fi ma waay la so obviously ñun amoon nañu yaakaar xam nga second game bi against Mali tamit xam nga so xam nga against Mali tamit gars def nañ ko ko so obviously third game bi kontaan nañ a baax xam nañ ne gars dañ koo def so kontaan nañ xam nga coach bi ñu ngi koy gërëm ñu ngi gërëm players yi waaw lii leen nit lii leen a xaar waa ah kenn du jaalo kenn du laka kenn du ñëpp ñëpp benn la kenn asus que team bi ñëpp parce so ñun tere nekk leen di xaaral moo tax wattu yàlla bi moo gën a mooy yàlla welu yàlla su fekkee rek su la tàggalee rek foog na fee ca am. loo xaajim game bi tey loo ci xam. waaw ah, game bi alhamdulilah ana kontaan nañu waaw kontaan nañ trop bi non Gambia fu mu nekk ni si mbooy moom dara desut luñ def def nañ yëpp. def nañ yëpp waaw def nañ yëpp. lii foogee wuñ ko woon ñu bëri ñu ngi amoon ñaari xel waaye léegi fu mu nekk nii. dëgg la 100% dëgg la Gambia fu mu nekk nii mun nañoo jël kopp te dañoo dem final ak Sénégal bu soobee yàlla incha allah allah loolu dafa am ah, loolu dafa am alaaji Mor yaa ngi dégg ambiance noonu ci suuf seen mbégte ak seen contentement am solo bi nga xam ne ñu ngi koy génne mu nekk génne bu massif a massif a kon ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom ki nga xam ne mooy Serigne Fallou en direct foofu li nga xam ne mooy Gambie ca Séné Gambia mi ngi noonu xam naa Mouhamed Fall bu jàppandee soxna Khadija moom it ñu jël ko manga foofu li nga xam ne moom mooy euh, marché bu Serekunda moom la ñuy jëli moom tamit mu diktal ñu rek askanu Gambia wi nekkee foofu naka lañ dundee li nga xam ne mooy seen ndam li aywa mi ngi doon soxna Khadija kon nga xam ne mooy côté a ndam li euh, ginnaaw bi nga xam xam ne gagné nañ Tunisie ñoom waa Gambie am sept points qualifié quart de finale yi euh, ci huitième de finale yi euh, askan wi jamono yi naka lañ koy dundee Mouhamed Fall. Elhadji Mor Diouf comme ni rek noonu la daal daal ci euh, huitième de finale yi jamono ji nag jàpp nañ fii ci réew mi moom mbégte daanaka loolu askan bi daal di àndal mm-hmm. ah, nga xamante ni ñoo yi ñoom ñu ngi koy daal di wane ni ñu mm-hmm. nga xam ñoo askan bi tamit ñu ngi koy daal di wane ni ñu ko ñu ciy dégg rek mooy li ñuy ñaar rek mooy euh, na jaar li euh, coupe bi na ci daal di tegu euh, mu doon loo xamante ne nag jamono ji yaakaar bu rëy a jur na ko ci réewum Gambia El Hadji Omar Diouf. Uh-huh. Mohamed mu mel ni lu raar la Gambie def ah, bi mooy première participation ci CAN bi mu ñëw tamit daal di gagné équipe bi nga xam ne moom mooy Mauritanie daal di gagné daal di gagné équipe bi nga xam ne moom mooy Tunisie niil ak Mali mu nekk loo xam ne lu rëy la ci Gambie. waaw mu doon loo xamante ne nag El def mën nañ jàpp ni surprise la mën nañ jàpp ni surprise la ndaxte ñu bëri jàpp noonu ni li première fois équipe bu Gambie dem Coupe mu daal di euh, qualifié nga xam ne moo di huitième de finale mu xam ne nag ndam la tamit ci réew mi ndax ni euh, li nga xamante ni moo di euh, ci fàttali tamit ginnaaw bi nga ni ci jamono yi xam ne ñu ngi ñu bëri ñu ngi kaas ni xaalis bu bëri lañ def ci li nga xamante moo di coupe bi ñu bëri caaskat bi dañ ko daal di ñu ci suuf handicap mais jamono ji dafa mel ni li nga xamante moom lañ ci defoon yëpp fàtte nañ ko ndax li ko war a li nga xamante ni moo di mbégte bi ñu indi la bi naam sax coupe bi wala bokk dama ko final jaajëf mu mel ne Mouhamed Fall rëcc nañu ci ligne bi dañ koy jaajëfal rek kon di jaajëfal ñëpp nii lañ koy amalee rek saa su diggante Sénégal ak Gambie xam ngeen ni benn la moo tax Gambie bu amee ndam rek day mel ni Sénégal dafa am ndam waaye tamit Sénégal bu amee ndam day mel ni Gambie daa am ndam moo tax saa su nekk bu Gambie gagné rek ñu jël suñu ndaw yi ñu teewal foofu kon loolu moo gënoon a fees ci journal de la CAN tey ji lee ñu ngi jaajëfal ñëpp ñu doon ànd ak ñun ci Info 7 TV suba ak jàmm ñu ko comme nañ ko daan defee tey moom xam nga xat-xat yi moo ñu xaw a tënk moo tax ñu doxalee ko ni le kon ñu ngi jaajëfal ñëpp ah, ñi jàpp ci komba bi ku ci mel ni soxna Bintu ak ki nga xam ne mooy soxna Khadija di jaajëfal sëñ fallu en direct foofule di jaajëfal it Mouhamed Fall jaa ngeen jëf mbokk yi ba suba ak jàmm ci beneen journal de la CAN ci Info 7 TV jaa ngeen jëf ñu fanaan jàmm luy leen di abonné tey bés cloche bi fii rek la du feneen.